waaw li doon suñu tànk ñu nag quasiment toute la population de Mbacké population sportive et footballistique de Mbacké dañu ñëwoon tey pour xool ci état d'avancement wu terrain de terrain départemental bi waaw loolu moo ñu indi woon fii tey ñun ñëpp ñi ma àndal ñëpp ñu ñëpp a ngi ci ginnaaw donc voilà kilifa yi nga xam ne daal ñoo ngànk football bi ci dëkk bi ñoo dajaloon ñëw xool fii li xew ci avancement wu état yi ci bu stade waaw lu ñu gis de moom vraiment doyuñu parce que nag euh, bët bu rusul toj ñun sonn nañ club bii yàgg na mënuñu am feneen fu ñu fubale dañuy jóge ba Mbacké di dem ba Diourbel di dem ba Bambey pour fubal yi te Mbacké daanaka avenir mooy deuxième club de région bi c'est pas normal ñu fiy jóge dem dëkk ak dëkk di football yi promoteur bi yor stade liggéey stade bi dañu bëgg mu àggale liggéey bi dans le plus bref dale parce que dëkk bi dañ ko soxla moom depuis presque une dizaine d'années terrain bi mu ngi fii demul dikkul te liggéey bi daf ko war def ni mu waree parce que daanaka liñ ko waroon li ministère si xonu moom li def na ko su munul nañu caché marché bi jox ko keneen mu àggale ko parce que il n'est pas le seul entrepreneur dans ce pays mm-hmm. il faut que les gens disent la vérité il faut respecter les populations de Mbacké il faut respecter les sportifs de Mbacké mënuñu chaque jour dama koy répéter chaque saison fii lañ buñ fubalul Bambey fubali ju Diourbel loolu a dakk te ñun on va saisir les dinañ bind ministère bi dinañ bind ñëw. ku soñoon foofu football da nga am say supporters. Mhm. doomi Mbàkke dañoo soxla di setaan seen équipe. mais du ñëpp du ñëpp mën a paas dem fii ba Njaareem wala dem fii ba Bambey di seetaan football. te bu ñuy wax football. Mhm. dañuy wax le douzième homme. douzième homme mooy supporter. dañ ko soxla. te bu dul loolu sax Mbàkke dafa nekk dëkk bu war a am stade boppam. Mhm. yeneen dëkk yi nekk aux environs ëppale wuñ ñu dara. promoteur bi di Mbaye fay dafa war a def liggéeyam. il doit faire son travail. fii ñëw nañ fi ñetti ouvrier lañ fi fekk. ñetti ouvrier fan la mën a jëmal stade bu mel ni hmm. gis ngeen gis ngeen gis ngeen fi police bi war a nekk ni mel ay ñaxa fi ne na def liggéeyam ñun diñu ñun ñi nga xam ne ñoo ŋànk Wulu Mbàkke nañ def li ñu war a def nañ bind ñu war a bind ñëpp nañ bind ministre bi mu recevoir ñu waxtaan ak moom parce que lii mënatul continuer jafe-jafe yi hmm. li ci li ci daanaka li ci li ci gën a metti tey jii nii mooy terrain bii nii parce que hmm. dëkk bi da koo soxla parce que tey club Avenir de Mbacké nekk na troisième division troisième division loolu ndaw ci Wulu Mbàkke léegi nag am na lu ñu war a organiser ci liggéey bi leen mais li ñu ëppal solo tey jii nii nii mooy terrain bii nii mooy jafe-jafe boo xam dañoo bëgg ñu lijjanti ko le plus rapidement possible autorités yi xam nañ ne Mbacké dafa ay jafe-jafe ci terrain xam nañ ko Matar Ba muy ministre xam na ko bu baax a baax muy ku ma xam bu baax muy nit ku baax te xam naa ne bu defee li mu war a def terrain bi dina ñëw ñu mu nekk état normal suñu defi sport Mbàkke mooy fi ko fekk ñu yóbbu ko niveau bu gën a niveau bu gën a mooy lan tey ñu nekk ligue professionnelle dem deuxième division dem première division te ñu ngi ciy béy suñu waar di ci waxtaan ñu ci waxtaan def ci li ñu ci war a def indi moyens yi pour loolu mën a am mais suñu objectif je le répète mooy jël club bi ko yóbbu ko ligue professionnelle ay ñuy def rek mooy li may wax dañuy dellu si waat ci terrain bi rek parce ko ci conditions yu baax tey bu ñu amoon terrain bu nekk en état mën nañ def ay détection toutes les semaines ou tous les mois ñu def ay détection xool dëkk bi ñi fi mën a football ñu mën a football mais il faut que infrastructure sportive yi topp mais ñu mën ñoo dimbali ñu mën a gis les vrais talents de ce pays de de la commune ou du département ou de la région te terrain bi mooy li nga xam ne mooy noyau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour loolu mën a nekk. non xam nga affaire yi moom ay voilà rek wax lu ñu xalaat ñun ñu wax lu ñu xalaat ñun ñoo les vrais ñun nous président wu équipe Bambey la Matar Ba c'est le pré c'est ministre des sports mais ñun ñi xam ne ñoo dëkk Mbacké di dund footballu Mbacké ñun li ñu war def dinañ ko def dinañ ko dénoncer fi ñu ko war a dénoncer te à partir d'aujourd'hui autorités yi ñu war a waxal dañuy wax ñoom mais li ñuy wax mooy entrepreneur bu munul rek na bàyyi keneen àggale changer stratégie peut-être que dinañ ko waxtaane mën nañ ko waxtaane toog waxtaan ak ni ñu war a waxtaan mais terewul fi ñu jàpp ni mooy que ne moom dafa war a àggale liggéey parce que liggéey bi ñu ko ko jox dañ koo fay ba mat sëkk na ko àggale bu ko murut fi ARMP fi DCMP fi ñu kase marché bi jox ko keneen mu ko loolu jafewut